gis nga bàjj bàjjan ruus naa la trop bàjjan tay bi ma la ruus moo tax lu bëri ma yemale mais gis nga bu dul woon loolu tay njaago tay laa kuy dóor ba ngeen yërëm ko yow man njaago la kooku daal kii xamuma kii baadoola la kii xamul yee laa ak li ma fi ma jaar ak moom ak li ma defoon teg moom kii war maa fayee lii kii man kii li ma yemee ndax yow waaye lan lay dox di wàlli bañee bàjjan lan lay wàlli bañee ci lu yoonam nekkul jigéen comme yow. foofu ma tey ma may rek cinq minutes ma def ko balance rek cinq minutes mu ñëw foofu di saa loxo fu mel ne koo fàtte. léegi laay soog a comprendre bu baax sawul café ga ma ko jox néegu njaago bee moo tëyu salte mbooti di fa doxantu weñ di taxawaalu ma teg fa kaasu café bi weñ ba tàgg ci sawru naa man maa jël weñ dugal ko ci man jéeg bu pare bu toll ni man dinaa defar café weñ di nekk ma koy jox sama jëkkër ah. dañ koy def kooku ñu reyante dañ xaajante dañ dabante dañ def lu leen neex. Toma, a toma. Ven a mi oficina, un pari. Mansa Usen, Jamal Maya. Jorge, Mansa Usen. Soñé lo que un día tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, Bunda, wanita galak di jamla. Cewek baru saja kesesat.